ma delluwaat ba kati mbar su lil ko ndam yu yi gaay yi baax ya yàgg wër nga naayu daa kaw di jëm mooy doomi Ahmad al Xadim jabaay ba woon mooy sama doom doomoo ko jox ko ay jikkoom mu sant li dolli ku jom ay sëriñ Saaliw Mbàkke mooy doomi Ahmad al jabaay ba mooy sama doom doomoo ko jox kay jikkoom mu sant li dali ku jëm la jiitu woon caag bëggam mooy doon mu resaadax bu jëm ci sëñ bi rek bañ a. sëñ Sall fi ñëw di fi dajeeg ku ñu wax Cheikh Amar di taalibeb sëriñ Saalihu mu doon jàmbaar lool ci xelkom ji yéen kàddu nga nga mën a seere ci moom. di ko fàttaliku te di ko ñaanal yàlla sunu borom may ko wér ànd ak fan wu gudd. ba lu raw li mu daan def at yi weesu mu koy def te incha allahu rabi rafet naa ci njort lii mu lii ko dal ni yu fi doomu aadama la te incha allah lu ñuy nettali lay doon te sunu borom dina ko def mu fekke ko di ko ñaanal yàlla rek lépp lu mu yéene ci liggéeyal sëriñ bi yàlla na ko yàlla motalil bu déwee ne incha allahu rabi nanu ñëw ànd ak moom fii te xam ne ni ma koy waxee saa su nekk rek ñi naan moom di ñëw même bu jëmmi seex ñëwul ñoom danoo war a ñëw bu dee yàlla moo taxoon ñu ànd ak moom la Seydina Omar waxoon nag ba ba ñu gisatu sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen ku doon jaamu sallallahu alayhi wa sallam sallallahu dem na waaye ku doon jaamu yàlla yàllaa ngi fi waaye ku yàlla taxoon ngay ak Serigne Saliou mi ngi fi waaye ku fekkoon nag jëmmi Cheikh ngir mu gis la ci àll bi rek moo taxoon ngay ñëw daanaka mën ngaa ba ñëw kon ñu ngi soññi mbokk yëpp te dinañ xamal daal kooku jàmbaar la ci liggéey bi noo bokk kër gi bokk waar wi mu ci jàmbaar lool ñu ngi ñaan suñu borom mu dellu siwaat ko ba mu nekkoon mu def lu ko raw ci barkeb Serigne yàqu jëm jërëjëf déglul ma wax la la daare njurul nga xam ne yoon wa ahmadul xadim ne woon fala ne woon samp bëtëm déglul ma wax la la daare njurul nga xam ne yoon wa ahmadul xadim ne woon fala ne woon samp bëtëm ñëw njurul si waxtu añ wax ñu wutal ko diw soppil ko añ ba gaaña won wun amun mu bég a na sant na yàlla gërëm ndax na ku jug soobu ci yoon du roy ku ci aw doxin dég jam la fam ko jeme woon wa ba woo yoon woon a ay sëriñ Saalimu Mbàkke njëlu na xëy na jàq na gontu na yuqu na tawte na dox na ci mbooya diñña na fan na ci jon mébatam ay sëriñ Saalimu Mbàkke kum yar du wet ba def la neen dafa tey la maam waxoon. jërëjëf nuyu naa la. ñu ngi lay ziar ku baax. tur bi naka la ak fa bàyyi ko. maa ngi tudd Laye bu Serigne Saliou. maa ngi bàyyi ko Dakar Kër Massar. Dakar Kër Massar. waaw Laye mu bàyyi ko foofu ci Dakar Kër Massar naka nga gisee xelkom ji ren. waaw xelkom gi day taw féex la faal. ñun moom lu ñu am rek Serigne Saliou mënu ko gënal. lépp lu ñu jàppoon ba bis bi jot rek dañ koy bàyyi. waaw di sant nag taalibe yi. waaw jëfe nañ digal lool sax. te koom gi ren am na taw féex. waaw ñu ngi daal am mbégte bu baax a baax di kontaan tamit ci yéen waaw vraiment sant nañ leen kontaan nañ daal di ñaan waaw affaire bi daal doon ay télé yu mag ah télé sëñ waaw télé sëñ bi waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm ànd nañ suñu gaay yi ay ñoom seriñ Saliou ay ñoom Mandaw taalibe Serigne Saliou ay ñoom El Hadj waaw suñu gaay yëpp waaw ñu ngi sant daal bu baax a baax baax a baax mbokk taaliba yi. waaw mu mel ne mbooloo mi takku na lool jàpp nga ne ku yéex dina fekk dara. waaw xel kom gi moom maanaam buñ nee suba la yow ñëwal tey hmm. te liggéey gi bu soobee yàlla taaliba yi dañ koy daane léegi léegi. incha allahu rabbi xam naa ne ñi di ñëw suba moom boo xam ne bu ñëwee moom dañuy barkelu rek hmm. waaye ñu fekk liggéey hmm. daanaka bàyyi faale gis nga ñu ngi door affaire yi mu ngi avancé léegi léegi rek incha allahu rabbi mu ngi jeex am na xalem bu dem ba njum ne sori naa Tuuba ndaxam waaye du tee ma si njum la maru soon fa kanamam lu tax ba man bu ma bawoo njum jëm si Tuuba kersawoo dëgg bët xayam nga mu di ma woo ma di ko wuy mënu la kabini irwaax na di wax na lu mel ni lu nu yéem keroog ba mi dajeeg boroom jaas janaa ji mooy turam ay sëriñ Saaliw Mbàkke yar naw ganeem xettali leen fegal na leen dunu goneen jàngal na leen toqi na leen dun fàtte mukk fee ñu jëm yar naw ganeem xettali leen fegal na leen dunu goneen jàngal na leen toqi na leen dun fàtte mukk fee ñu jëm dunyaa ñëwan fi patam taarlu di saf ko am xorom munu ko jugal nga dem bi aturus na ngay ganam subhaana subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin salaamaaleykum yaa booy nuyu naa la. maa ngi lay fay. yaa booy tur bi naka la ak foo bàyyi ko. soxna Mariama Ndiaye dëkk Thiès Darou Salaam. soxna Mariama Ndiaye dëkk Thiès Darou Salaam. soxna Mariama Ndiaye noo gisee liggéey bi tey. xanaa di liggéeyal Serigne Touba ba ñàkk rek mbay ci waaru yi daw ci waaru ci waaru Serigne Touba yi waaru Serigne Saliou Mbacke bi. yàlla nañ ko teew ay déwén yu bari ngeen fekke ko yéen ñëpp te ko te man ko ci barke Serigne Saliou yàlla na yàlla taaf ci barkeem liggéey bi yàlla nañ fi ñëw ay déwéni déwén ci barke Serigne Saliou di ko ñaqal rek di tedd mm. barke Serigne Saliou mbooloo mi bëri na lool mbooloo ku yéex na fekk dara mbooloo mi na ku yéex doo fi fekk ku yéex doo fi fekk ndax mbooloo mi bari na te murit day jëfe ndigal ku yéex doo fi fekk dara jërëjëf barke Serigne Touba kum yar du wet ba dafa teyi la wa waxoon ron sori pir du tax mu doon ak ngeer gu boo fage xobam am na xalem bu dem ba njum na sori naa tuuba ndaxam waaye du tee maru si njum la maru soon fa kanamam lu tax ba man bu ma bawoo njum jëm si tuuba kersa woo dëgg bët xayam nga mu di ma woo ma di ko wuy mënu la ka bini irwaax na di wax na lu mel ni lu nu yéem keroog ba mi dajeeg boroom jaas janaa ji mooy turam ay sëriñ Saaliw Mbàkke yar naw ganeem xettali leen fegal na leen dunu goneen jàngal na leen toqi na leen dun fàtte mukk fee ñu jëm yar naw ganeem xettali leen fegal na leen dunu goneen jàngal na leen toqi na leen dun fàtte mukk fee ñu jëm dun yaa ñëwan na fi patam taarlu di saf ko am xorom munu ko jugal nga dem bi atunus na ngay ganam subhaana subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin yéen a ngi ànd ak seen groupe Khelcom communautaire. bul fàtte abonné sa groupe Khelcom communication te bés kolos bi vidéo bu ñëw mën a yomb ci yow nga mën ko. jori nuyu naa la maa ngi lay fay. jëriñ foo bàyyi ko. xombal la bàyyi ko. Euh, naka nga gisee xel kom ji ren. xel kom macha allah wax dëgg yàlla ñëw naa fi ay da ay ati at mais ren moom bi wax dëgg yàlla nangu na baax na ko mhm. naka nga gisee ñu gis ne xel kom gi suba lañ ko wootee te boo xoolee daanaka euh, mbooloo mu baree bari ñëw nañ mën nañ ne sax lu ci ëpp dagg nañ ko loolu naka nga ko jàngate. waa man taalibe sëñ Cheikh Anta la bu Daaru Salaam. Mhm. moom dafa yàgg di anticiper. Mhm. bu sëñ bi wootee suba bu bu yeewoo bu yeewoo bu yeewoo fajar ma nga ca. du xaar bis bi parce que toujours dañuy anticiper ñun ñun waa Daaru Salaam amuñu caaxaan amuñu dellu ginnaaw ñëw rek. ñëw rek ñëw rek bu sëñ bi wootee ñëw rek. ndax am nga yaakaar ne eh, ku xaar bis ba boo ñëwee dagal naa ne du fekk lu bari wala déet. Ah, eh, ba ba mu daan am daal yi ma fii ñëw moom ku xaar bis boo ñëwee doo fekk dara. doo fekk dara xañ na ren nag dugub bi am na quoi dugub bi moom wax dëgg yàlla Daaru Salaam nangu na ren quoi li ma gis nii. wax dëgg yàlla am na dugub ko jërëjëf jërëjëf. doon sori pir du tax mu doon am na xaleem bu dem ba na sori naa Tuuba ndaxam waaye du tee maru si njum la maru soon fa kanamam lu tax ba man bu ma bawoo njum jëm si Tuuba kersawoo dëgg bët xayam nga mu di ma woo ma di ko wuy manula ka bini irwaax na di wax na lu mel nii lu nu yéem keroog ba mi dajeeg boroom jaas ja naaji mooy turam ay sëriñ saalimu mbàkke yar naw ganem xettali leen fegal na leen dunu goneen jàngal na leen toqi na leen dun fàtte mukk fee ñu jëm yar naw ganem xettali leen fegal na leen dunu guneen jàngal na leen toqi na leen dun fàtte mukk fee ñu jëm dun yaa ñëwan na fi patam ta